asalaamualeykum wa rahmatullah association ànd liggéeyal daara ñooy ibbil buntu jullit ñépp ci dugal seen loxo ci waqfu bu ñu taxawal ngir jàppale daara yi fas yéene koo tàmbaleeg daara abdullah ibn mas'ud ca ngaabu ku soxla ay leeral ci bile waqf mën ngaa woote ci numéro yi affiché ci suufu baar bi man ngeen a jaarale seeni participation ci bile waqfu ci numéro yi affiché ci écran bi tey sàkku ci ñépp ñu partagé ko alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala amma baad mbokki jullit yi maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla di leen ko dénk ñu xam ne am na ñaari melokaan yoo xam ne mooy ràññatle diggante ngëm yàlla ak nifaaq muy naafiq ñaari melokaan yooyu mooy dëggu ak ñàkk dëggu muy nar dëggu suñu borom tabaaraka wa taala moom la melale ñi gëm yàlla suñu borom nee na ñi gëm yàlla dëgg mooy ñi gëm yàlla akub yanantam te amuñu ca lu ñuy sikki sàkka di jihaad ci yoonu yàlla ci seeni alal ak ci seeni jëmm mu ne ñooñee ñooy ñi dëggu ci seen ngëm ulaika hum as dëggu dafay lënkaloo ak lépp loo xam ne doomu aadama ngi koy def wala mu di ko wax wala mu di ko mel daa war a feeñ ciy wax feeñ ciy jëf feeñ ci melokaan suñu boroom tabaaraka wa taala def na dëggu muy nattukaay bi nga xam ne ci la nit di mucce yowmal xiyaam ndax lu nit jëf rek bu dëggu nekkul ca biir jëf jooja du doon jëf ju suñu borom tabaraka wa taala di fay suñu borom ne yowmal day wax ne haada yowmu yanfau saadiqina sidqu lii de bis la boo xam ne ñi dëggu woon seen dëggu gën leen jariñ tey lahum janaatu tajri min tahtiha al anhaaru xaalidina fiha abada radiallahu anhum wa radu an zalika fawzu al azim ñooñu dëggu woon ci mbooleem lu ñuy def wala ñu di ko wax lu ñuy def ci jaamu yàlla dëggu nañu seen diggante ak seen boroom rekk tax ñu di ko def amuñu ca leneen ñu cay wut ñoo ñooñee day suñu boroom dañ leen tàbbal aljana yoo xam ne dex yaa ngay daw ca suufam te dañ fay sax dàkk nag te yàlla gërëm na leen ñoom itam gërëm nañ li leen suñu boroom tabaaraka wa taala defal mu ne loolee nag mooy ak taxe goo xam ne gu màgg la suñ boroom ne ëllëg dana laaj ñi dëggu woon seen dëggu gi li yes ala saadiqiina an sidqihim ndax kat bari na kuy woote woo ak dëggu te ak dëggu nekku fa kon suñu boroom dana rek la nit ki ci dëggu gi nga xam ne moom lay wane wala moom lay woote woo suñu boroom ne li yejsi allahu saadiqiina bi sidqihim suñu boroom dana fay way dëggu yi ca seen dëggu ga waaye way yuadibal munaafiqiina in shaa aw yatuuba alayhim inna allaha kaana xafuran rahima waaye dana mbugal naafiq yi mooy ñi ñàkkoon a dëggu bu ko soobee bu ko soobee itam mu jéggal leen suñu boroom tabaraka wa taala ab jéggale waa kon la ab yërëme waa kon la ñu jële ci abdullah ibni mas'ud radiallahu anhu bu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi yonent bi di dénkaane dëggu ne aleykum bis sidqi na ngeen taqoo dëggu bu leen tàqalikook moom benn yoon ndax dëggukat day jëmale ci ak mbaax te ak mbaax day jëmale aljanna nit ku du deñ di dëggu di dàkk dëgg ci lépp lu muy wax ba ñu mujj ko bind fa suñu borom tabaaraka wa taala ku dëggu waaye mu moytuloo safaanu dëggu muy nar muy wax lu dul dëgg wala di ko jëf mu ne wa iyaakum wal ndax kat nar muy wax lu dul dëgg day jëme ci ak ndëngte day jëme ci ak kàccoor te ak kàccoor day jëme safara nit ki du deñ di wax lu dul dëgg di dàkk lu dul dëgg ngir bëgg lu neex nit ñi wala ngir ragal seen lor bañ mujj ko bind fa suñu borom tabaraka wa ab narkat muy waxkat lu dul dëgg loola nekk aw melokaanam dëggu muy martabatu siddiqiya ñi dëggu ba am martaba boobu ñooñu ñoo topp ci yonent yi alayhimu salaatu wasalaam suñ boroom ne wa man yuti illah wa rasul fa ulaika ma allazina an'ama allahu alayhim min annabiyin wa siddiqin ku topp yàlla topp ab yonentam nee na ñooñee day danañ ànd ak ñi suñu boroom tabaraka wa taala xéewalal baaxe leen ñu xam aw yoonam te nangu koo topp ñooñu nag ña jiitu mooy yonent yi waaye ña ca topp mooy siddiqin yi muy ñi nga xam ne dëggu nañu lool ba dëggu nekk màndarga ci ñoom wa suhada ñi shahid doog ca topp wa saalihin ak nag ñu baax ñépp wa xasuna ulaika rafiqa mu ne ñooñee day rafet nañu ab àndandoo ku ñu nekk sab àndandoo day am nga àndandoo bu baax am nga àndandoo bu rafet borom bi ne wala si jaa bi sidqi bi saddaqa bi ulaika humul muttaquun ki nga xam ne andi na dëgg wax na dëgg jàng na dëgg ba xam ko waaye dëggal dëgg ga nag nee na ñooñee ñooy ñi ragal yàlla wa si Abdourahmaan Saadi di wax ci tafsir aaya bi ne jaa abi mooy koo xam ne andi na dëgg ci ay waxam ci ay jëfam lépp dëgg lay doon ñi ca jiitu nag mooy yonent yi ak képp koo xam ne taxaw na seen taxawaay ci di jot li dëgg di jot li diine yi borom bi tabaraka wa taala di xibaar li nga xam ne moo ne ci diine mu koy xibaare di leeral attey diine yi ak nag ni mu mel ci ay melokaan yoo xam ne itam yu dëppook dëgg googu la waaye nag wa bi bihi mooy nag mu dëggal loolu mu indi ndax nit ki mën naa jàng diine ba xam ko ba di ko wax sax di ci waar nit ñi waaye day ne moom dëgg day mel ne moom dëggalu ko ndax du ko jëfee safaan ba lay jëfe kon day mel ne andi na dëgg waaye moom dëggalul dëgg ndax ak rëy wala ak xeeb ña ko jottali dëgg ga moo tax nee na bu ñuy tagg ku andi dëgg dañ koy taggaale ci dëggal gi mu dëggal dëgg gi mu andi buñ taggee ci as sidq dañuy tagg ci at tasdiq andi dëgg waaye dëggal dëgg gi dëggal ko ci ay waxam dëggal ko ci ay jëfam wax dëgg ak indi dëgg day tegtale xam-xam day tegtale ak maanu waaye dëggal dëgg nag day tegtale ak toroxlu day tegtale ak njàkk rëy ndax nit dana xam dëgg ba noppi waaye ak rëy jàpp ko ba du topp dëgg googu am maa nar muy wax lu dul dëgg mooy melokaan bi gën a fés ci bu ñuy xamee naaféq naaféq bari ne melokaan lool waaye ba ca jiitu gën caa fés nag mooy nar mooy wax lu dul dëgg moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy tudd melokaan yi naaféq lam ca njëkk a tudd mooy isaa haddasa kasaba su waxee dana wax lu dul dëgg borom bi ne naaféq yi bu ñu la dikkalee yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne seede nañ ne yow mii yow la yàlla yónni suñu boroom ne yàlla day xam na ne yow la yàlla yónni waaye yàlla seede na ne naafiq waxuñu dëgg liñ la wax dëgg la waaye ñoom dëggaluñ ko kon andi nañ dëgg waaye dëggaluñu dëgg gi ndax ñoom gëmuñu lool innal na la kaasibuun boroom bi na xanaa gisoo ñi nga xam ne dañoo naafeq dañuy wax ñi nga xam ne ñooy seeni mbokk yi weddi yàlla tey askano ahlu kitaab dañ leen di wax ne bu buñ leen génnee danañ génn ànd ak yéen nuñ duñ topp kenn ci yéen lu nu waay digal lu jëm ci yéen loola duñ ko def te ku xeex ak yéen danañ ko danañ leen dimbale danañ ànd ak yéen xeex borom bi ne wallaahu yashhad innahum la kaasibun yàlla seede ne ne loolu ñu wax loolu du dëgg buñ leen xeexee wala ñu génne leen it ñoom duñ ca ànd bu ngeen génneet duñ génn di ànd ak yéen ñàkk a wax dëgg nag ak nar bi ci gën a rëy mooy di ko jëmee ci suñu boroom tabaraka wa di waxal suñu boroom lu mu waxut di wax ci yàlla loo xam ne amoo ca benn dalil amoo ca wenn lay di sànq nit ñi ak di dox seen digganteek diine ji nga xam ne mooy diine lislaam di leen indil yeneen i mbir di sos loo xam ne lépp nar la di fent ay bidaa di sos ay yoon di andi yu juuyoo ak sharia juuyoo ak lislaam di wax nit ñi nag ne lii ci yàlla la jóge di wax ne lii mooy diine ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon lii mooy sunnaam te fekk na lépp ay nar la dara du ca dëgg watam borom mi ne wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kazaba bi ayaatih innahu la yuflihu zalimun amul kenn ku gën a rëy ak tooñ kuy duural suñu borom tabaraka wa taala loo xam ne du dëgg nga koy sos di ko askane la yàlla wala ngay weddi aayaam yi nee na ñooñu du ñu taxe ndax ñoom bokk nañ ci tooñkat yi gën a rëy ci tooñkat yi ndax tooñ nañ seen bopp waaye seen moroomi bindeef yi ñuy sànk itam ci loolu ñuy sos ba nit ñi jàppee ko diine te du diine loola tooñ nañ ca ñooñu borom bi ne waman azlamu mimman iftara alallaahi kaziban ana kan moo gën a rëy ak tooñ kuy duural yàlla di wax lu dul dëgg aw xoo aw xaala uuxiya ilayya walam yuwax ilayhi shay wala muy wax ne dañ maa wax yu naan yàlla dane ma nàngam ndax képp ku ne yàlla wax naa ak man rek yàlla moom ci wax yu lay waxee rek ay jaamam ku ne yàlla wax naa man directement rek kon li muy tekki mooy da ngay woote woone yàlla daf laa wax yu aw qaala uxiya ilayya walam yooxa ilayhi shay te fekk kenn wax yu ko dara wala boog la koy wax yu seytaane la wa inna shayatina la yooxuuna ila awliyaihim li yujaadilookum seytaane kat moom dana sol ay xalaat dana sol ay ngëm-ngëm ñi nga xam ne dañoo féeteeg moom ngir ñu mën a werante ngir ñu mën a dàgganteeg ñi gëm yàlla borom bi ne innama yaftari l kasib ala allazina laa yuminuuna bi ayatillah wa ulaika hum nee na foo fekk kuy dóor ay sos di sos ci diine loo xam ne dara du ca dëgg kookee li muy tekki mooy dafa gëmul aayay suñu borom bi tabaraka wa taala te ñooñee ñooy narkat yi ñooy waxkat yi lu dul dëgg yi jële ci abdullah ibni amr radiallahu anhuma mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa wa sallam mu ne képp koo xam ne sosal nga ma waxal nga ma loo xam ne man waxuma ko te yaa ko tey na nga xam ne sa place ca safara moom ma nga lay xaar faatu rek moo la ca teetab bi ab jullit dëgg daal day sori melokaanu nar melokaanu wax lu dul dëgg du gërëm mukk di tilimal ngëm yàllaam di tilimal lislaamam ci wax lu dul dëgg laajoon nañu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax ku gëm yàlla mën naa nekk ab ragal mu ne waaw mu ñu ne ko ndax mën naa nekk am nay mu ne waaw donte yooyu yëpp nag day wàññi ngëm yàlla ga waaye teewul ngëm yàlla mën na faa nekk ba tey ñu ne ko nag dana ndax dana nekk koo xam ne waxkatu lu dul dëgg la am narkat la mu ne déedéet ñaar yooyu moom mënuñoo ànd al imaan euh, al al sidq mënta ànd ak al kazib nit ki mënta nekk siddiq ba noppi nekk kazzab ñaari yi mënuñoo ànd nar nag façon yu bari la ko nit di defee bokk na ca nag di fent ay xissa ay xissa ay nettali yoo xam ne amul benn cëslaay sukkandikuwul fenn amut wala ab xissa sax am na waaye mu yokk ca wala mu wàññi ca wala mu wëlbati ko waxe ko neneen ngir bëgg a saxal la muy saxal wala dàq la muy dàq wala di xibaare mbir yoo xam ne dara amu ci wala muy jéem a wane ay melokaan niru nurlu ay nit moo xam ci col wala ci waxiin bëgg ñëw boole ko ca ñooña te fekk na soree na ak ñooña lool di woote woo xam-xam di woote woo melokaanu borom xam-xam moo xam ci colam la moo xam ci waxam la moo xam ci defiinam la loolu lépp day tàbbi ci wax lu dul dëgg wala def lu dul dëgg loolu lépp ne la ci yóbbi nit ki mooy njariñ lu mu bëgg a xëcc walla lor ju mu bëgg a dàq wala fés gu a fés ci kanamu nit ñi wala ay daraje yi àdduna yu mu bëgg a am ci ñu di ko tagg ak ñu di ko naw di ko yéem ci xam-xam wala sos ya muy sos lam ci jublu mooy suufeel ay nit ak xas leen melal leen ay melokaan yoo xam ne yu ñaaw la ak itam xéeru lool ci jiitu bëgg a jiite mbooloo mu nekk bëgg koo jiite ak ñàkki teggin loolu nit ki da ciy dem ba lool loolu mujj nekk abititam nekk aw doxiinam nekk aw melokaanam ñi ngi ñaan suñu borom tabaraka wa mu mu wërsëgal nu ak dëggu ak ak sellal te soreel nu wax lu dul dëgg ak di sos ak di dóor rawatina di ko jëme ci diine ñi ngi ñaan suñu boroom mu boole na ci ñi nga xam ne ñooy as-saadiqiin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum association ànd liggéeyal daara ñooy ibbil buntu jullit ñépp ci dugal seen loxo ci waqf bu ñu taxawal ngir jàppale daara yi fas yéene koo tàmbaleeg daara Abdullahi ibn Mas'ud ca Ngaabu ku soxla ay leeral ci bile waqf mën nga woote ci numéro yi affiché ci suufu baar bi man ngeen jaarale seeni participation ci bile waqf ci numéro yi affiché ci ecran bi tey sàkku ci ñépp ñu partagé ko